bàyyi ba <laughs> caagee dinañ ci gën a indi ay dinañ ci gën a xuus caporal nga laata loolu ku mel ni Diégui Diop ñuy naan ne dafa daal di génn réew mi ba ñu génne ab note diggagee di direction de la police de l'air et des frontières mu ngi xam le ne ko gis nag mën nga koo daal di kii parce que xëy na peut-être dafa bokkoon ci ñu waroon ñàkk a génn ci réew mi waaye dafa mel ni moom euh, daa am fu mu làqatu waaye moom tamit dafa mel ni fës na ba naan génnut parce que yëf yi moom nee naa la dëkk bi fi mu fi mu nekk nii kenn xamul boobu ba génn bi fi mu nekk nii jaxasoo na lool. waaw ñoom ñoo ko jaxase. ñoom ñan. ñoom ñi daw ñoo ko jaxase Macky Sall njëkk daw. Abdoulaye ba mu ba mu mm-hmm. daanoo toog na fi trois mois yoo xam ne Sénégal la nekk. Mm-hmm. demul fenn ab ñu jox ko avion mu dem. Mm-hmm. mais Macky Sall jour bi la passé service jour bi mu ko def bàyyi bàyyi. ba pare yéeg ci avion bi daw parce que xam nga def nga fi njaaxum boo xam gaa gars yi nañu ko xam ñoom Jéggi Diop ak ñoom ñëpp ay sàcc lañ. Mm. waaw Jéggi Diop ministre bi moo ko porté plainte de bi ko remplacé. moo ko porté plainte parce que gis nañ njaaxum ñoom fa def moom lu muy daw du jàmbaar la fi nga di fëgg dënn lu muy daw. parce que voyagé wul rek dafa am tukki ndaw yooyu Farba Ngom bëgg naa dem mu tëkko Mansour Faye bëgg naa dem mu tëkko. Farba dañ ko borom a ja bëggoon naa dem mu tëkko. <laughs> Ah, Amadou Ba. moom pare na ci dootul dem. comme ñoom ñëpp rek. ñoom ñoo waroon toog daane léegi nañu leeral. comme que Ousmane Sonko muy premier ministre Ousmane Sonko ak gouvernement bi taxaw nañ daan ne gars yi dañoo këpp keesu Sénégal doo ko daw. ñum fa cité duñ génn hmm. ñu leeral mais du ñu leeral ñeneen ñoo comme exemple Bougane mooy leeralal Amadou Ba hmm. Bougane looy leeralal Amadou Ba te yow waxoon nga ne Mansour Faye doon na sàcc na quatre-vingt-dix-huit milliards jaar la ko ci benn compte privé wax nga ko kon loolu xaalis boobu duñ ko génnee te am nga hmm. preuve yi quatre-vingt-dix-huit milliards ñaata entreprise la mën a defar Sénégal ñii li leen di jiiñ lépp bu ñu calculer mën na set mille milliards mais moom nee na dawul dawul demul fenn bu fekkente ne Ousmane Sonko ak Diomaye dañ ko bëgg a jàpp nañ ko fekk si këram parce que nee na dawul bu fekkee mu ngi këram kay du Diomaye jàpp kenn waaw léegi pourquoi mu nekk moom dafa génn mais moom nee génnut dama ne jaarul ci kii yi de fu mu jaar moom nee na mu ngi këram instant yi génnu émission ngoon waaw waa léegi lan moo ëpp preuve gi sama yaay jégi jóob mii xam na ni un milliard et quelque léegi man lan moo preuve déglu ma léegi ku ne man maa ngi nii xam ngeen sama kër boo leen ma bëggee jàpp fekk leen ma ko jàpp ba jotawul jomaay jàppul kenn Macky Sall danaan jàppaate tëj ko Ousmane tëj na Ousmane mois biir këram mhm. doom jàngiwul ba échoué baccalauréat loolu démb la ñu defu leen dara dañ leen wax ne wax dëgg ne yàlla yéen a mhm. réew mi waaw ah, comme yéen a mi ke léegi da ngeen toog léegi bu ngeen xaaree ba justice def liggéeyam après mbaala yaa mhm. ñoom ñoo def ñoom ñoo yuuxu de ñoom sàcc yi ñoom ñooy wax ne sàcc dañ ñun dañ ñoo bëgg a jàpp allo waaw jaay dañ ñoo bëgg a jàpp mm-hmm. mënul ñàkk ñoom mm-hmm. dañoo luubal suñu alal complot ak Macky Sall ay milliards de dollars dañu sàcc deux mille cinq cent milliards nga sàcc ko def ko ci secret défense fu la neex lu la neex yow ngay dépenser xaalis boobu mm-hmm. te amul amuñ amul amul amul dara loo xamante ne ma nga ci rendre compte secret défense moo tax quarante cinq milliards d'armement ba mun ko fàttali ci la bokk waaw 45 milliards dara moom nga jël ko jox ay nervi nervi yi rey ay nit ñëpp gis leen ni numéro 10 bi numéro 10 ba ñëpp gis nañ ko mu yor arme fusil ana arme yooyu fi nga ko jëlee. ci mais ci de ci secret défense bi la bokk pare foofu de nga ne sénégalais yi gis naa ni yéen daal man bi ma ñëwee 2012 fekk naa fi boru 3000 milliards hmm. waaye. Hmm. comme man maa ngay dem bàyyi naa leen ak boru 13000 milliards. loolu nga ñu wax de. Mhm. nga dem ñu gëstu xool ndekete yow du 13000 ndekete yow bàyyil nga ñu fi baru 16000 milliards. ba gaay ne la. Mhm. kër gu nekk kuy doog a judd tey sax di nga mhm. fay 900000. yow nga yoroon la ñu 400000. sunu 400000 léegi tegataguñ ci 900000 yoo xamante ni ko léegi yow yow Macky Sall yore nga ñu 1 million kenn ku ci nekk yore nga ñu ko yore nga ko 1 million 300. daañu ci ñëw. daañu ci daañu ci ñëw caporal. bu ko bu ko baral parce que am na dafa am loo xam ne dañu ci doon wax sànq mu am solo ci wàllum yaa génn génn ma ñoo génnee ci communiqué ci moom direction de la police de l'air et des frontières moom moo ko def ne moom dafa génn moom mu génnaat ne génnul mu ngi fi donc loolu nan la ko nan lañ ko war a mën a expliquer parce que sànq wax nga ne na génn def émission ne por loolu du par force du comme xam nañu këram nañu dem këram. yow est-ce que xam nga ne boo toogee fii. Mhm. heure bi am na bu la bëggee jàpp duñ la tàggu. kon la moo tax mu def loolu pour yow. dama ne dafa génn réew mi na génn def débat suba wala ngoon mu ne génn moment yi nii comme ni ñu leen def mais lu li li li nga war a poser question. Mhm. mooy lan moo tax ñu ne ko bul génn ak waroo génn. loo def am na ñoo xam ñu ngi génn Maodo Malick Mbaye génn na yoonam kenn inquiété wu ko ci dara. fu ko neex dem. moom ca médiation internationale am ñi andoon ànd ak Macky Sall ñëpp bokk na ñi ci gën a jub. dem na yoonam mais moom mosuma dégg ne dañ ko mosuma dégg ne dañ koo tere génn dañ koo porté plainte porté plainte mille milliard euh, un milliard et quelque mhm. ci microfinance bi mu yoroon dafa am lu ñu ciy xool bul dem toogal xaar nga ne da dem nee na demul de waaw loolu justice la du jomaay de justice moo war a régler problème bi buñ ko bëggee convoqué du moom convoqué wuñ ko wuñ ko woon ankay convoqué wuñ ko woon wuy ji na fi ana la jóg convoqué wuñ ko woon bàyyi ko mu ñibbi këram mm. takk rajo yi encore ñu ko wekk war ko ne ko sàcc nga mm. waxuma sax sàcc nga mais dañu def trafic de faux billets mm-hmm. waxuñu sax sàcc nga mais dañu def détournement waxuñu sax sàcc nga mais c'est-à-dire yow benn malfaiteur nga woon quoi blanchissement d'argent nga doon def ci réew mi ci xaalis boobu ci xaalis boobu sax ku ci mel ni xaadim Ba ak Ibrahima Marfal day fay toll ci deux deux deux deux cent quinze milliards. di leen fay lépp nañ leen. waaw dugal dara nañ dugal soixante milliards. ñu bale déedéet. déedéet non waxoon naa ko fii un jour. Mhm. boo sàccee ñu jàpp la nga delloo taxul ñu bàyyi la. parce que boo liggéey keneen day sàcc. da ngay delloo pare ñam liggéeyal réew mi loolu sañ bañ. ñoom ñi ñoom ñi lañ détourné xale yi dugg ci gaal bi deux cent milliards ñoom rek deux cent milliards ñaata entreprise moo tabax xale yi dugg ci gaal gi doon dugg ci gaal gi ñoom ak seen i mafia Ablaye Sylla ak mafia ay ñoom Sira Diagne poste ay ñooñu li ñu na ci xaalisu senegal bu ñu ko defoon ci ay hôpitaux wala ci ay tali amul benn jigéen buy accouché ji di di di ñàkk bakkanam ci ay saret mhm. jëlal xaalis bi def ko pour sénégalais nga jël ko def ko sa poste ay offre spontanée def ko ci ay banque sénégalais loolu comptabilité du ko gis mu dem ba nekk mille huit cent milliards ngeen séddoo ko yéen ak seen i njaboot nan nga mën a jàppee ni far Farba Ngom hmm. yorul benn fonction ci Sénégal sàcc nañ këram deux cent cinquante millions sàccaat fa deux cent cinquante millions sàcc fa huit cent millions loolu ñaata la un milliard et quelque te yow benn fonction xaalis boobu la ba ñuy séddoo ci seen biir c'est des multimilliardaires Maodo Lamine Mansali lan mooy xëyam ab PCA la fi nekkoon. Mhm. milliardaire la wala millionnaire la. moyens yi mu am fu mu ko jëlee. ah grande question. yoroo benn fonction buy tax nga mën a fayeeku. Mhm. dix millions par par année par mois. Mhm. PCA nga fi nekkoon jëkk ba si yàgg rek nekka fi ab genre PCA kenn PCA amuñu xaalis ñu ay deux millions. mais yow say dugg dugg say génn génn moo tax nga am nga kër fu ne. am ngay tool fu ne oto genre oto bu ne ngay dawal Modou Lamine Massal il faut jëlee moo tax pol judiciaire bi dañoo yaakaar ne ci ñuy gouverner sàccoon alal ji déedéet. Mm-hmm. am na koo xam te ne mu ngi ci koñ bi. kon police judiciaire bi boobu maanaam ku ci fay duñ la bàyyi nga dem. déet kon nga defaat ko suba da ngay ñam. mais lii boo ko fayee foo koy jëlaatee ba koy defaat. non non da ngay fay comme ñii nañ fay soixante milliards bu dawalee un mois ci kaso bi lijjantiwaat fayaat vingt milliards ba xaalis bi mat mais xaalis bi matul tànk xaalis bi matul doo génn moom. tant que xaalis matul. ah deux cent deux cent quinze milliards parce que ñaata nit ñoo ñàkk seen bakkan. Mhm. parce que dañoo bëggoon a faju ñu laaj leen xaalis bii milliards yii. Mhm. moo nañ def ay eh, hôpital mille milliards. mille mhm. milliards amul benn hôpital boo ko ci pour ko am corona yam ñu consulter la te kenn du ko tudd. kenn du ko. ah am na jamono. tudd nañ ko wax naa fi ay jamono yoo xamante ne kenn du ko tudd. tuddoon. kaso nga deux mille fo deux mille détenus politiques deux mille détenus politiques moo amoon ci réew mi ñaata moor ban dem ba rey ay militaire dem ba rey ay militaire loolu mosul am ci Sénégal mm-hmm. parce que dañuy njotoon ni dañuy ñoom ñooy dañuy dañuy complot Ousmane Sonko wala dañ koy jox ay moo day moo lay wan ay documents ñu koy wanante ay documents mm-hmm. demul noonu moo taxoon ma demandé à ce ñu génne armée ci fichier électoral bi. Mm-hmm. ba kenn bañ leen jiiñ da nga ñu fara fi wala pare parce que nit ki boo ne ko voté boo ko voté loowee yaa ko politique loo parce que ki ngay voté yaa koy wut loo choix. Macky il a fait trop de mal dans ce pays là man j'ai été radié dans l'exercice de mes fonctions sous le lit d'hôpital sama bët bi ci laa ko ñàkkee. Mm-hmm. sans droit jaay ma doole may xeex nag ñun dootu am de léegi ñun door jaay doole ji ñu doon xeex ba ñu am doole jooju yoruñu sax doole ji. Mm-hmm. yoruñu nguur. ba tey ñu yor régime bi yor yor euh, état bi di ko doxal. Mm-hmm. comprendre nga ñun duñ jaañee doole. Mm-hmm. parce que Sonko li mu daj gisuma ci ñoom kan moo ko mën a daj. Mm-hmm. kon bu la yoon woowee da ngay xaar ba yoon woo la wala boo yëgee yoon dana la woo jarul ngay wax demal nga wuyu yoon am na ñoo xam ne wuyu nañ fi yoon après ñibbi dara xewul. parce que ñu dara. mais mun na wooyee nga yuuxu di jooy. ça ne se passe pas comme ça. mais avec tout ça mon bu ñu gisee yii ci ay.